لأنه للحدى والنور جرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki M-Media groupe Nour Daarayni bokki taalibe bokki jullit yi ginnaaw bu nu jiitalee sant suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama delu santal Seexna al Xadim kon noo ngi ñëwaat insha allahu taala ci sunu jataayu jigéen sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihati al muminina wal doon jotaay boo xam ne moo ngi ciy wax bokki jigéen ñi di ko amale fii ci ëttu M Media Group Nourou Darayni doon jataay boo xam ne jotaayu laayanti biir la waaye jotaayu fàttalente la mu mel ni xañ na li ñuy wax rek mooy dañuy laayanti biir di fàttalente waaye di jàngale dañoo jub bay jubale wala dañoo xam bay xamale déedéet dañuy jël rek la sëñ Tuubaa waxoon waamur bil maaruf wa xayyir munkara wa nabi zaxtiraari munkara waaye nag wabda bi nafsika anhaaha an xayyiha wa jacal min taqwa rabbika jamila ziyaha li ngay digle ci aw ak di ko tere ci aw ñaawteef nanga ko commencé ci sa bopp kon li ñuy wax lépp nanga ko commencé ci suñu bopp bu dee lu ñuy digle la na nga koy commencé ci ñun bu dee lu ñuy teral la na nga ko commencé ci ñun tekki ne dañ caa bu fekkee ne lu ñuy digle la tekkiwu ne dañ caa nekk ba pare nag di ko digle bu fekkee ne lu ñuy teral la tekkiwu ne dañ koo bàyyi ba pare di ko di ko tere waaye dañuy fàttalante rek bu fekkee lu war a bàyyi la ñun ñëpp ñu ànd xeex ak suñu bakkan ak suñu suñu bànneex ak àddina ba bàyyi ko su fekkee ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy digle la ñun ñëpp ñu ànd góorgóorlu ba fexe teg ca sunu tànk waaye tekkiwul ne dañoo xam bay xam ne wala dañoo jub bay jubale kon ñu fas yéene dikkaat insha ci sunu jataayu jigéen ñi muy zaadi nisa jataay bii nga xam ne moo paase ba léegi rek noo ngi woon ci ndinkaane bi Sëriñ Tuubaa ba agsi woon ci duumi alal xumuumi wa tasaturi وأن تخفي بصوتك دهرا تشكري alxumul bokk doon lu am am solo ci jigéen indi nañ ci ay jataay ay jataay jataay ñu ko ci ak waxarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ndax dafa doon loo xam ne lu doyo doy waar la rawat na suñu jamono ji nga xam ne ci la nekk nga xam ne li muy wax ne mujjug jamono jant day fenke saw mooy la nga xam ne mooy safaanu bu baax nga xam ne ku ko masaa def rek dañ lay ñi tey moom la nit ñi di def ñu leen di tàgg wala ñu leen di ñuy kuukarewu jàpp ne ñoo nekk ca kaw fa nit da teg tànkam ñu jàpp ne eh, ñu jàpp ne ku baax la di ko tagg tey boo fa tegee sa tànk ñu ëpp ci nit ñi ŋàññi la loolu nag bokk na ci melokaanu jant fenke sow mooy la baaxoon dañ koy bonal la bonal ñu baaxal ko nga xam ne ay jikko yu bari yoo xam ne jikko yu suufe la woon wala ay solin yu bari yoo xam ne colin yu suufe la woon nit ñi dañ ko daan bañ a sol wala buñ ko daan soloo nekk loo xam ne lu mënta ñàkk la léegi nit ñi moom ñuy solo di ko sañsee di ko wëri am réew yëmul rek nag ci jigéen ñi xam ne dafa gën a bari ci jigéen ñi waaye yëmul ci jigéen ñi dafa dem ba ci góor yàlla yi eh, waxoon nan sol lu seer waaye nag rafle sol lu seer waaye nag rafle boo ko ba ci sunu bokki sunu bokki góor yàlla yi sunu bokki góor ñi eh, bu ñu xoolee ci jamono yu jëkk ya boo jën boo masaa jënd ab yéere di ko sol ba yére ba xotteeku ca uum ya wala mu xotteeku ci fu mën a xotteeku ci ci yére bi rek danga koy daal di tegale wala soo ko dee sol lenn mooy tax nga sol ko lu ci ki dem tool wala nga sol ko ngir euh, liggéey te say bu liggéey ba jeexee nga summi ko léegi nag buñ ko indee ba ci sunu jamono ji nga xam ne buñ ko méngalee ci eh, solu ba pare rafle da nga gis koo xam ne dañu jël ñu tuddee seen tubay wala ab jiin mel ni dañ koo firanti nga xam ne da nga daan sol ab jiin ba mu firantiku dañ jël ab jiin firanti ko wala ñu furil ko wala ñu xotti ko ca kaw walla ci suuf wala ci diggante bi wékk ko di ko jaay ngi dikk jënd ko lu seer sol ko mel ni lu fori wala mel ni lu firintiku wala mel ni lu xottiku nga jël ko sol ko jënd ko lu seer sol ko dafa ndax yaa ci nekk nag mi ngi ci góor ñi mi ngi ci jigéen ñi góor gu sol ab jiin ji doo mel ni daa fori wala mu sol ab jiin jiin ba mel ni lu xutti ca kaw ak ci suuf wala mel ni lu ràpp ba firintiku ñu wékki ko di ko jaay nga jënd ko lu seer sol ko defe ndax yaa ci nekk ñu koy faral di wax rek jigéen ñi seen jigéen ñi ak góor ñi moo ñoo ci yem àgg ba ci jënd ab yére àgg ba ci liggéey ab yére xutti yére ba wékku ko di ko jaay nga xam ne boo ko solee saw yaram day nekk ci biti say tànk day métti day nekk ci biti moo xam sey tànk ci ginnaaw wala ci kanam day nekk ci biti nga dem jënde ko lu seer sol ko bokki loolu ak jant mënu koo paase ndax ni ma ko waxee léegi boo ma saa jënd yére sax di ko sol ba loolu fekk la ci mu ràpp ba xotti ko wala mu furi da nga koy sànni ji wala nga ko ngir demee ko tool rek wala ngeen liggéey ko saa boo ko solee ngir liggéey bu liggéey ba jeex nga summi léegi nag da nga koy jël furil ko wala ñu xotti ko wékku ko di ko jaay seer nga dikk sol ko dika ndax yaa ci nekk loolu ak deltu ginnaaw la ak deltu ginnaaw la bu mag a mag a mag a mag sunu jamono ji nga xam ci la nekk na li ñuy ñuy wax ñëpp noo koy gisandoo ñun ñëpp noo koy gisandoo jikko yi àgg na ba ci nga sol ab yére mu jot sëkk nga xam ne boo ko solee mën naa wàcc sa jumboox du feeñ wala mu wàcc sa ginnaaw du feeñ waaye nga lem ko nga lem ca kanam ba sa jumbax wala sa biir nekk ci biti nga bàyyi ko noonu dox di wër wala nga aj ca ginnaaw baxañ ko ba nga xam ne sa ginnaaw ci biti te boo ko bàyyee woon noonu man naa bañ a feeñ nga baxañ ko bàyyi ko noonu sa sa sa ginnaaw nekk ci biti loolu daf ci doon lu doy waar sax lu doy waar rawat na ni nga koy gis lenn ci jigéen ñi xam ne jigéen ñi moom bu fekkee ñen ko sañ a wax war noo taxawaat digg digg digg digg xool xool digg digg yarinu yarinu yarinu jigéen ñi ndax seeni col ni mu jéggee dayoo seeni waxin ni mu jéggee dayoo ak seeni doxin la borom xam-xam ba doon wax ne soo génnee ci mbedd mi di dox su fekkee ne da ñàkk xel da ngay su fekkee su fekkee da ngaa ñàkk xel euh, ay jooy daf lay jàpp su fekkee da ngaa am xel da ngay yërëm ndaw ñi ngir ñàkk kersa gi nga xam ne moo am ci ndaw ñi rawatina ci ndaw lu jigéen ñi nga xam ne suñu moom dafa dafa def ci ñoom loo xam ne euh, ci ndaw ci jigéen ñi nga xam ne suñu moom dafa ci ñoom loo xam ne defe ko ci góor waaye ñu toll ci jamono joo xam ne da yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne dem ba ci jamono joo xam ne buur duutut maandu jigéen duutul am kersa foofee lan tollu ëpp ci buur yi kenn maanduutu ci li ëpp ci jigéen ñi kenn amatu ci kersa te kersa nag mooy mooy mooy rakki diine saay boo ñàkkee kersa rek amoo diine saay boo ñàkkee kersa amoo diine te diine mooy lépp képp koo xam ne am nga àddina ak li ci biir te amoo diine amoo dara ku ñàkk ak li ci biir te ñàkkoo diine am ñàkkoo dara kon ñëw nañ ci jataay yooyu jataay bu passé ba dikkoon ak yéen ci lenn ci ni jigéen ñi di xeebe seen bopp ci seeni colin waaye yokk seen bind bi leen suñu borom bindan te mu gën ci ñoom ñoom ñu xeeb ko di ko yokk ci melokaan woo xam ne melokaan wu gënut ci ñoom la lan ca wax lépp rek di ko nañ ci waaye tey ñu bëgg dikk ci beneen bi eh, sëñ bi doon dénk soxna Penda muy Euh, wal tux fi sawtaki muy del suufel sa kàddu jigéen war di suufel kaddum nga gis ne bi alquran waxee ya nisa annabi lastun naka ahadin min annisa in ittaqaytunna lam ca teg mooy fala ta'danna bil xawli fa yatma'a allazi fi qalbihi maradun jigéen bokk na ci di suufeel kaddoom bañ a yëkkati ci di ko neexal wala sax wala sax ci leneen lu ko nuru ay jamono jin moom ak nañ ba ci lan lanu tere woon jigéen sax loola mooy day mel day dañ koo safaane lañ leen tere doon day dañ leen ko diggal moo dana wax ni jigéen nay suufeel kàddoom duñ ko yëkkati di ko neexal ndax am na am sax lenn ci waroom xam-xam yi ñuy wax ne kàddu jigéen awra la am na lenn ci waroom xam-xam yi ñuy wax loolu nga gis ne bokk na ci li gën a li gën li li li gën ci al ci àddina mooy alquranul karim alquranul karim moomu dana wax ne yow jigéen su fekkee ne dangay ngay julli sax nga nekk fi aw nit ñoo xam ne dañ la xaraan ne na yow na nga sa kàddu alquran jooju ngay jàng na nga ko suufel sa kàddu ci julli te bokk yi jàng alquran baax na ci ci barab yi ne waaye nag jàng ko ci biir julli moo gën jàng ko ci lu dul julli ndax laajoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko jàng alquran ci ak ci julli ak jàng ci lu dul julli lan moo gën mooy jàng alquran ci biir julli moo gën jàng ko ci lu dul julli jigéen ñu koy wax buy jàng alquran comme jàng alquran ci biir julli moo gën jàng ko ci feneen julli bu sax nag boo ci taxawee di jàng alquran na nga wàcce sa kaddu bul yëkkati sa kaddu àgg na ba ci noddu gi nga xam ne no ñoom la ñuy noddu booy noddu dañ cee sopp ko xam ne baatam mën naa yëkkatiku baatam neex na lool te loolu suñu borom defal na ko jigéen waaye nag loolee dafa tax mu xaram ci jigéen jigéen bañ kàddum yëkkatiku moo tax noddu dafa xaram ci moom boo demee ca borom moxtasar bu mu wax ne Euh, bokk na ci barab yi nga xam ne nodd dafay xaraam mooy jigéen mu nodd jigéen dafa moom jigéen mu nodd dafa xaram ci moom ndax kàddoom awra la loolu boroom muxtasar moo ko wax nee na bokk na ci li tax ñuy tere jigéen mu nodd nee na jigéen kàddoom awra la kon waru ko yëkkati ba ay jàmbur di ko jigéen ne léegi woon ginnaaw loola safaane ko loo xam ne waxi caaxaan rek la ñu ci yëkkati seen kàddu la nga xam ne sax wax la joo xam ne wax bi faratawula te mooy jàng alquran wala nga yëkkati ak nodd wala turu yàlla wala ngay sikar wala nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee la yow jigéen boo koy def na nga suufeel sa kàddu jigéen buy jàng alquran ci biiru nit day suufeel kàddoom jigéen du nodd jigéen du liqaam ci biir nit bu fekkee ne moom dong mooy julli ci ak wéet moom sañ naa liqaam waaye dañ ne liqaam ci jëmmam dong moom mu koy dégg waaye nag bu mu yëkkati kàddoom loolu lan waxoon jigéen wal tux fi di sawtaki dëhëran tashkar yi nga gis ni jigéen moom kon fenn fan maye mu yëkkati kàddoom ci biir ay jàmbur yu góor amul ndax comme alquran moo gën a màgg lépp jàng alquran moo gën lépp te ñu wax ne jigéen buy jàng alquran sax na suufeel kàddoom rawat na julli gi nga xam ne mooy jaamu yàlla gi gën a màgg ci jaamu yàlla gi nga xam ne jàng ci alquran moo gën a màgg ci jàng ko ci leneen lu dul moom ñu wax ne jigéen buy jàng alquranam jooju na suufeel kàddoom jigéen tam du nodd ndax nodd doon bëgg borom kàddu gu yëkkati ko borom gu neex te jigéen lool daf ko yomb kàddoom neex daf koo yomb kàddoom yëkkati daf koo yomb kon jigéen xaraam na ci moom mu noddu waaye nag buñ waxee waxul na xawlan maarufa waxul na xawlan maarufa mooy sañ nanoo wax nag waaye bu ñuy wax nanu wax nanu suufeel seen kàddu te la ñuy wax itam buñ koy neexal ci ay jàmbur la sax donte sax du ay jàmbur sax buñ koy neexal ci ñoo xam ne dañuy xaraamante ñu suñ ñu ñu ñu daje euh, kon nañ suufeel kàddoom jigéen sañ naa wax ay soxlaam sañ naa wax ay soxlaam waaye bu dara desul mu koy waxante ak sax ak ay jàmbur yu góor bu mu neexal kàddu ga bu mu yëkkati kàddu waxul na xawlan xawlan maarufa kon buñ waxee loolu waxaale mu jigéen ji yëkkati kàddoom di di woy wala mu yëkkati kàddoom di jàng xasida wala mu yëkkati kàddoom di sikar yooyu yëpp alquran mu leen gën màgg te doon wax ne jigéen sëñ te jàng alquran di yëkkati kàddoom kon wal tuxfi di sawtaki dëhëran tashkari kon boobu itam bokk na ci li nga xam ne sëñ Tuubaa dénkoon na ko soxna Penda Juuf ginnaaw bu mu ko waxee duumi alal xumóol alxumóol mu ci mën a wax bari na lool lool lool waaye bam ca tege mooy bam ca teg mooy wàllu fi bi sawtaki dëhran tushkari ne dañuy taxal foofu tey insha allah taala al karim ba beneen jotaay mun dikkee gën a jàll ci leneen insha allah ñaan suñu moom defal nu ak géej gi defal nu ak toog ci wa seenal xadim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 sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey